salaamaaleykum gars yi maa ngi leen di ziar euh, di kontaan ci seen présence ci live bi bon on attend les autres gars yi ñëw gën a bëri comme ça ñu adressé le message que nous devons adresser au peuple sénégalais maa ngi nuyu ñëpp euh, di leen ziar di espérer ne ñëpp ngi ci jàmm même su dee je sais que ñu ëpp kenn nekkul ci jàmm parce que fitna la ñuy dund suñu réew mais bon tenons bon et on fera face incha allah. donc on attend juste que les autres arrivent pour ñu tàmbali live bi incha allah. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen euh, ziar euh, di kontaan ci ñëwaat si beneen yoon euh, selon contexte bi ni mu koy laajee ak selon situation bi fu muy toll pour ñu waxtaanee situation wu réew mi ak lan moo war a doon suñu taxawaay pour la continuité de la résistance et du combat le combat démocratique pour sauver la République sénégalaise. Euh, dinaa tàmbali sama live nag ci wax leen ne pourquoi je dis que le bon je dirais pas bon mais excellent maanaam taxawaay bi fi mu toll nii non ñu ngi koy defee ci anam bi mu gën a rafetee et on ne pouvait pas rêver mieux loolu moo jiitu deuxième bi dinaa ñëwaat ci wax leen ni lan moo tax Macky Sall mënut gañe xeex bi bu fekkee ñun ñu ngi continuer suñu mobilisation. dinaa aborder aussi question wu Macky Sall li muy insinuer ne am na ay forces organisées ñenn ñi déggee ko armée yoo xam ne bu classe politique bi ñëwulee waxtaan fekk si ko ci dialogue bi muy woote moom le putschiste moom bi nga xam ne il est illégitime loolu mu wax ni bu classe politique bi ñëwulee ñu force organisée yooyu mun nañ jël pouvoir bi dinaa ñëw ci loolu ban jàngat nañ ci war a def parce que je vois que bëri na ci ay leader ay candidats ay acteurs politiques yu ñu rafet bu seen taxawaay yu ñu respecté ñoo xam ne jàngat bi position bi ñu ci jël ñu partagé wuñu ko et que Macky Sall li ñu ci bëggoon mu ngi koy bëgg a am loolu il faut ñu taxaw ci trois quatrième point bi nag ñëw taxaw ci le mot d'ordre actuellement lan moo war doon suñu taxawaay te ñëpp ngeen gis ne euh, coalition Diomaye président am na lu mu annoncé et aussi am na ñu lu ñu partagé partout dans les réseaux sociaux pour mu war a nekk campagne mu suba ak gannaaw suba lu ñu war a taxawee su ma nee nag le rythme est excellent mooy xam leen ne Sénégal gëjoon na fi depuis 2011 ñëpp dajaloo xeexandoo lu mel nii dama leen di laaj force yii ma leen tuddal parce que bu ñuy wax askanu Sénégal askan bi yëpp la. mais askan bi dafa am ci ay segments sociaux yoo xam ne ci la organisé woo muy syndicat yi muy association yi et cetera muy groupement yi nga xam ne moom la nit ñi bokk ak aussi bu ñu wootee dara askan wi génn spontanément te te bokkuñ sax ci groupement yi wala yoruñ ci ay responsabilité loolu mooy askan bi mais balaa ma ñëw ci loolu damay adressé samay vibrant hommage ak naqarlu ak massawu ñi nga xam ne ñoom ñoo fi faatu muy alfa Tunkara fële ca UGB muy Landing Camara ca Ziguinchor ak aussi suñu frère Modou Gueye fële ca Pikine di wax ni nag lii firndewul leneen lu dul ne Macky Sall bakkanu sénégalais yi dee ci tali bi c'est problème firndewul leneen lu dul ne xeex bi ñuy xeex ñu amuñu droit abandonné ko moo tax ma ni meilleure façon pour rendre leen hommage mooy lu ñu tàmbali ñu wóyal ko meilleure façon pour bañ a wan ñooñu ne trahiruñu leen et seen bakkan dem deewuñu ci maali faro mooy ñu wóyal li taxoon ñoom ñuy xeex mooy lan Macky Sall na restaurer le calendrier républicain kon maa ngi leen jaale seen mbokk di ñaan yàlla seddal suuf seen kaw te mu jéggal leen yërëm leen te xaare leen ñi nga xam ne ñoo ciy blessé ñu ngi leen di wax ne ñu ngi leen souhaiter prompt rétablissement ñi nga xam ne ñu ngi leen di arrêté ñu ngi leen di wax courage et ñun dinañ wéyal xeex bi sur le terrain ba ñoom ñu libéré leen li ci tegu nag mooy su ma nee toutes les forces vives dajaloo nañ et que guléet ci Sénégal ñu am lu mel nii il faut loolu ñu capitaliser ko bañ yenn discours défaitiste yoo xam ne mën na dugal ci bopp ñu ngi ne combat perte nañ ko ba pare wala dañ koy perte wala sénégalais yi defuñ lu war a def loolu bu ko kenn nangu. lii may bëgg a tudd presse bi organiser wu nañu te ñu ngi liggéey c'est pas pour rien ñu tëj Walfadjri obligé du d'une semaine après ñu rétablir ko parce que ñëpp a taxaw gis ngeen fi ay presse yoo xam ne ñu bëri dañ leen doon taxé ne dañoo proche du pouvoir te nag seen ligne éditoriale mu nekk loo xam ne mun nañ ko critiquer loolu mooy dëgg. seeni patron nekk ñu jege ma Macky Sall nga gis leen ñu démarqué wu ci situation bi nga gis leen ñoom ñëpp ñu jël benn ligne donc presse bi cette fois ci am na ñoo xam ne ay barbouze ne c'est des mercenaires de la plume et du micro comme li Ousmane Sonko waxoon duñu mus a wàcc ci seen jikko yu ñu nekk mais xam ngeen ne cette fois ci li ëpp ci presse bi condamné nañ ne unanimement l'attitude de Macky Sall et son coup d'état loolu muy jiitu beneen bi mooy. syndicat yi lu tax may taxaw ci syndicat yi mooy bu leen kenn nax gis nga réew lii tax mu am koom-koom lii tax état taxaw mooy liggéey c'est la force du travail <laughs> budget Sénégal bu ngeen jëlee quatre-vingt-cinq pour cent recettes yi yi nga xam ne recette alalu réew la ci ci impôt yi quatre-vingt-cinq pour cent recettes yi nga xam ne boo c'est des recettes fiscales muy impôt yi est-ce que xam ngeen ne ménages yi ñoo koy fay ak travailleurs yi kon impôt wu liggéeykat mooy dundal état bu activité économique amulee parce que travailleurs yi liggéeyuñu mais réew mi réew mi du taxaw day taxaw donc syndicats yi seen seen taxawaay c'est extraordinaire gis ngeen collectif des syndicats d'enseignants seen taxawaay gis ngeen syndicat wu transporteurs yi seen taxawaay gis ngeen syndicat bi ëmb médecins yi seen taxawaay même syndicat wu travailleurs yi nga xam ñoo liggéey ci télécommunication mais loolu c'est un capital extrêmement important e benn sénégalais bu mu ko négligé muy deuxième force organisée bu taxaw jàkkaarloog Macky Sall ba ci syndicat wu architecte yi du ma ne syndicat mais en tout cas ordre architecte yi seen groupement bi leen dajale ñun gën ngeen la mos a dégg Sénégal ñuy bi mooy patronat bi au moins deux organisations patronales muy confédération nationale des employeurs du Sénégal muy club des investisseurs sénégalais ñu ngi rafetlu seen taxawaay dinaa ak lan mooy taxawaayu peuple sénégalais mais lu tax ma tàmbalee ci organisation yi ñeenteelu force organisée mooy ñoo xam ne baaxoo woo leen di leen dégg souvent bu dara xewee Sénégal wala boog souvent dañ jàpp du seen cër donte seen cër la muy ay sportif muy ay anciens sportifs yu mel ni ay Diomass Camara ay Matar Ndiaye comme ay sportif yi nga xam ne ñu ngi fi ay Kalidou Koulibaly ay Pathé Ciss ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi leen ñu ngi rafetlu taxawaay loolu dafay bokk ci liy mettre la pression sur le régime bu leen ko xeex beneen bi ci tagu mooy ay artistes te Sénégal artistes yi ñi siy taxaw moment yii dañ leen di compter dig dund gis gis ngeen taxawaayam Cheikh Ndigal Lo gis ngeen taxawaayam gis ngeen taxawaayu groupe Daara di famille sixième segment bi nga xam ne taxaw nañ jàkkaarloog Macky Sall ci putsch bii mu def ci coup d'état bii mu def mooy ñan mooy société civile bi. mu am nag ñaari forme société civile dafa am société civile boo xam ne lii seen mbir la muy la société civile électorale ay ONG 3D wala cadre bi ëmb organisation société civile yi yëngatu ci élection mais gis ngeen ñoom seen taxawaay kenn d'accord ci comme yeneen organisation société civile yu mel ni ay forum civil donc ñooñu ay acteurs yu am solo lañ ci démocratie parce que gis ngeen li taxoon ñun Pastef ñu sonnoon ci xeex bi ñu doon xeex ak Macky au mois de juin au mois de juillet parce que dañ doon jàpp ne benn groupe ci classe politique bi nañ ko doon def mais désormais Macky Sall léegi positionné wu comme koo xam ne askan wi yëpp ñoo am la moom loolu c'est une donnée extrêmement importante juróom juróom-ñaareel bi mooy religieux yi te nag ma jiital ci église catholique bi à travers l'archevêque de Dakar taxawaay bi mu taxaw position bi mu jël bu une position très très courageuse loolu dafay dafay def écho dans à l' international dafay isoler le pouvoir de Macky Sall il faut que ñu capitaliser loolu li ci tegu mooy ligue des imams et prédicateurs bu imam Dame Ndiaye jiite nga xam ne ñooñu ils sont fidèles à leur réputation et à leur position nii lañ mus a taxawee religieux yi ba léegi gis ngeen risque al waxda bu Maxtaar Kebe jiite nga xam ne aussi seen position dañ cee yàgg constant lépp luy yàq ci réew mi ci ciy lépp loo xam ne laaj na képp kuy sénégalais nga def preuve de patriotisme et citoyenneté taxaw nañ ci gis nañ ci collectif vingt-huit kilifa diine fa la ci Touba taxaw taxawaay bu rafet mais attention loolu c'est extrêmement important et c'est excellent ma teg ci jamaa Ibaadu Rahmaan mi nga xam ne Amir Abdoulaye Lam moo ko jiite force yi yëpp ñu ngi dajaloo ne Macky Sall li nga def ñoo xam ne kenn daan lañ dégg souvent sur les questions d'actualité ñu prononcé wu ne Macky Sall li nga def donc du yoon et da nga war a rétablir le calendrier électoral te bu ko defulee na Sénégalais yi mobilisé wu man loolu moo ma neex ci communiqué yi de yamul ci dénoncé li Macky Sall def jëluñ deux poids deux mesures mais dañu taxaw ne lii lu yoon coup de la ba pare taxaw ne Sénégalais yi nañu mobilisé loolu nag su amee dañ koy kañ dañ koy capitaliser pour juróom-ñetteelu force organisée bi taxaw jàkkaarloog Macky Sall mooy universitaires yi gis ngeen texte boo xam ne cent seize universitaires ñoo ko signé loolu am na Sénégalais buy jàpp ni amul njëriñ mais ça fait écho à l'international et loolu day teg pression ci régime te créé nañ benn collectif collectif des universitaires pour la démocratie ba tey jii dañuy def veille ñu ciy remercier professeur yu mel ni Felwine Sarr nga xam ne seen yi ci réew mi à chaque fois que démocratie ay euh, Kader Boye ñooñu ils ont été toujours constants loolu mooy juróom-ñeenteelu force bi nga xam ne jàkkaarloo na Macky Sall mu des juróom-ñeenteelu force mooy lan conseil national du club laïque Sénégal nga xam ne rarement la ñuy dégg ñi ñuy prononcé wu sur des taxaw nañu ne lii Macky Sall def de d'état la putsch la d'accorduñ ci dixième force organisée nag ma génn tuuti Sénégal balaa may génn Sénégal dixième force organisée mooy ay nit ñu bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar muy parti politique yi bokk ci gauche parti de gauche ay LD ak ay PUD. yéen kañ la Macky Sall mus a def forfaiture bu dissolution parti politique bu tëj opposant bu roy Sénégal da ngeen mus a dégg ay parti Benno Bokk Yaakaar ne d'accord ci ay ministres yu bokkoon son propre camp di démissionné ndax loolu mais loolu c'est extrêmement important te c'est significatif onzième force nag ma génn Sénégal dem ci ñetti catégorie groupe mooy onzième douzième et troisième organisation bi ci jiitu mooy ay état étranger yoo xam ne bu ñu tegee pression Macky Sall ça fait écho muy États-Unis muy Allemagne gis ngeen communiqué bi États-Unis mujjee def ne woon Macky Sall na rétablir les données mobiles def ko gis ngeen communiqué bi États-Unis def ne d'accord nañu ak CEDEAO ci Macky Sall dafa rétablir le calendrier électoral gis ngeen ñaawlu bi ñu ñaawlu moo di démb loolu moo tax Macky Sall mënul jàpp kenn c'est extrêmement important. su weesoo yenn état yi gis ngeen li ñuy wax les organisations intergouvernementales muy ONU à travers son secrétaire général muy Union africaine donte fasuñu muy CEDEAO muy Union européenne Union européenne gis seen position dafa leer Macky Sall na rétablir le calendrier électoral ñun xëy na Macky Sall respecté wuñu mais ñooñu bu ñu koy teg pression fekk ñun sénégalais yi ñu ngi wóyal li ñu wóyal loolu mooy sama deuxième partie suñu taxawaay. mënu leen wax ba Macky Sall li mu def da koy delloo ci day delloo ginnaaw si li mu def wala nguuram daam mooy choisir entre les deux kon CEDEAO aussi seen communiqué bu mujj bi donte bu njëkk bi clair obscur dañ doon joué mais bu mujj bi leer na nañ ñi que Macky Sall mooy problème bi te dafa war a rétablir le calendrier électoral bu mujj bi nag mooy ay olg yu mel ni ay Amnesty International ak yeneen organisation yi feex droit de l'homme ci àdduna bi ñoom ñépp taxaw nañu. ne Macky Sall li nga def du yoon te nee nañu li ñuy traité presse bi li ñuy traité sénégalais yi manifester di leen rey di leen tëj di leen blessé di leen toroxal ba ci ay handicapé ba ci ay jigéen c'est inacceptable et inadmissible léegi nag benn question laa leen posé yéen mbokk yi ñun ñii yow ñu may déglu nga xam ne depuis 2012 voté la woon Macky Sall da ngaa jàpp ne Macky Sall baaxul ni muy doxalee yow mi nga xam ne. depuis Macky Sall bi mu commencé tëj ay opposants nga génn ci nu muy doxalee yow bi nga xam ne bi nga gisee ne corruption la la indi te mu gangréné l'économie sénégalaise l'administration sénégalaise boobu nga jug pour xeex ak moom yow mi ko votelul woon deux mille dix neuf yow mi génnoon au mois de juillet ne d'accord woon ci parrainage mu mu amoon quelques sénégalais yu àndul ak yow àdduna bi waxuñ ci yow mi génnoon mars mille vingt et xeex yow mi génnoon juin deux mille xeex. te force yi yëpp dajaloo wuñu woon ne Macky Sall li nga def du yoon période bii période bii yow ngi nekk Pastef ñu gisu doon sa parti da nga wéetoon ci période bii nga xam ne ñëpp fekk si nañ la ne la am nga raison nekkate Macky Sall mooy problème bi créé na Sénégal situation bu inédite dans l'histoire du Sénégal indi na loo xam ne musul am ci réew mi mooy lan violer constitution bi bëgg a imposer ci réew mi parce que loolu mooy son vrai projet dama ne leen yow mi xeex jamono yooyu ba yegg si fii c'est pas le moment de se décourager ndax nag l'histoire t'a donné raison l'histoire à donné à Ousmane Sonko raison l'histoire a donné raison à tous les patriotes l'histoire a donné raison à tous les opposants yi nga xam ne yàgg nañoo constant ci ne Macky Sall ak nguuram fitna nañu indi Sénégal dama leen ne bu leen kenn gëmloo ci presse Macky Sall wala ci ay nit ñoo xam ne xëy na dañoo comprendre wul dañoo mun leen comprendre tuuti que Macky Sall moo tenir le haut du pavé que Macky Sall mën na génn ci situation bi Macky Sall il est dos au mur ñun ñooy pousse nag mu jeex boo ñu commencé nag di julli wala ñuy hésiter mooy ñun parce que nous n'avons rien compris loolu mooy première partie bu bu nga xam ne moom laa bëggoon waxtaan ak yéen pour ñu xam ne grâce à notre résistance grace à notre constance aujourd'hui Macky Sall est dos au mur force yi ma tuddal leen muy treize force dama leen ne kan nañu bañ a àndal ci réew peuple bi di résister kooku mun a continuer gouverner Macky Sall le peuple di gouverner ce pays soyons vigilants soyons lucides et analysons la situation pour comprendre que ñun actuellement nous avons presque gagné le combat li ci te nag kon mooy ñun lan lañ def ba réussir lii mooy c'est parce que vendredi bi ñu waree taxaw mobiliser wu xaaruñu kenn ñun le peuple sénégalais c'est dans les réseaux sociaux que des sénégalais de bonne volonté des citoyens se sont organisés pour gis ne vendredi bii dañu war a taxaw xeex vendredi boobu partout au Sénégal les gens ont fait une mobilisation extraordinaire muy dakaar muy banlieue dakaroise moo xam euh, Pikine la moo xam Guédiawaye moo xam Rufisque muy Ziguinchor nga xam ne ñoom seen taxawaay amul benn sénégalais bu koy nattable may ñaawlu tir à balles réelles yi fay am Ousmane Sonko waxoon na ko ñu bëri di jàpp ne parce que foofu la soqee ko mais à chaque fois manifestation di am fenn ci Sénégal ak Ziguinchor da ngeen gis ne niveau de répression bi Ziguinchor lay gën a brutal c'est comme si que ña fa nekk di xeex bokku ñoo yeneen sénégalais yi mais loolu képp kuy sénégalais di patriote da da nga war a am courage dénoncer ko nga jël sa loxo nga teg ko sa baaraam nga teg ko ci loolu que loolu dafa dafa ñaaw waruñu tere benn sénégalais bu manifester waruñu tirer benn sénégalais ci bal ci manifestation waaye ni ñu koy defee Ziguinchor mais loolu pour lan université yi surtout université Gaston Berger de Saint-Louis seen taxawaay rafet la kon nag li xew vendredi bu dee am na jàngat buñ ci war a def mooy ñun peuple bi. nous avons les clés en main te à chaque fois ñu bëgg a teg Macky Sall pression à chaque fois ñu bëgg a wane suñu naqar ñun ñoo ci war a jiitu leader politique yi bu fekkee am na leader politique yoo xam ne joué wuñu seen rôle donte ñu bëri ñu joué seen rôle loolu dama bëgg ñun ñëpp à partir d'aujourd'hui ñu retenir ko kon nag nañu jël suñuy responsabilité si loolu nag lay wax ne bu ñu kenn divertir xam nga la mooy divertir ñu di ñu créer ay mot d'ordre yoo xam ne da def activité vendredi war a toogaat beneen vendredi war ko def wala ay type d' activité yoo xam ne taxul Macky Sall reculer Ousmane Sonko waxoon na ko il a toujours été constant Macky Sall rapport de force la xam Macky Sall li mu xam mooy dëkk bi fépp di yëngatu lépp nekk à l'arrêt te Sénégalais yi ko seen bopp adduna bi yëpp teg ko pression ne ko li ngay def nii du yoon dellu ginnaaw Macky Sall xamut ay marche silencieuse Macky Sall xamut ay marche déposé naa march tere ma léegi damay rép jaay républicain Macky Sall xamut génn dox fenn eh, Macky Sall libéré les détenus politiques Macky Sall dictateur non au coup d'état après mu jeex Macky Sall li mu xam mooy un niveau de résistance boo xam ne fépp ci Sénégal sénégalais yi dañuy jugandoor taxaw jàmmarloo moom Macky Sall loolu la xam ak nguuram kon bu ñu kenn divertir ci ay mot d'ordre yoo xam ne xay na xëy na mun na jëriñ dara waaye nag doole bi day des loolu dafa am solo ñu xam loolu que ñun peuple su ñu xeex bu ñu ko délégué benn acteur politique bu ñu ko délégué benn politicien en commençant par moi ma nekk Pastef sama discours lu ngeen ci gis baax na jël leen ko mais dama leen ñaan bu leen toog bay jàpp ne bu acteur politique yi wala candidat yi wootewul wala génnuñu campagne que yéen waroo leen jouer seen rôle yéen askanu Sénégal parce que ñun askanu Sénégal nañu spolier suñu droit boo xam ne c'est un droit constitutionnel te mooy droit fondamental bi tax ñun askan wi ñu yëpp ñu yem mooy principe que ñun ñooy tànn suñu njiit désormais ku mu neex ñi fal la ba pare nga yokk sa mandat bu heure la neex sa ba sa bamba di kon nañu comprendre que Macky Sall ñun askan ñoo mun jëflante ak moom kon nag segment sociaux yi ma tudd sànq yépp bu ñu defee ay communiqué def ay artu dem ci presse bi wax def ay conférence de presse ñun ñooy wëyal taxawaay bi sur le terrain ñun peuple sénégalais te bañ cee déglu kenn te maintenir résistance bi foofu laa ñëwee nag ne am na erreur yoo xam ne commenter nañ ko dans l'histoire waratuñu dara ci xam nga mooy lan mooy tàmbali benn mbir xamuloo say objectif wala boo nga jékki-jékki wax ci say objectif dérouté wu après nga bàyyi gis bu ñu bàyyee ñi dee mars deux mille vingt et un kenn du mus a élucider seen sort kan mooy dara kan mooy responsable ñi dee juin deux kenn du mus a élucider seen sort ñi deewaat jamono jii kenn du élucider waat seen sort gis bu ñu bàyyee Macky Sall mu ne oyofal di jàpp di bàyyi bu paree ba liy jàll. parce que buy taw du fobeere dina wëri ñëpp ñu doon def manifestation fekk la seen kër yi tëj leen ci kaso bi man maa leen wax lii dictature bi ngeen yi ngeen gis ci àdduna bi yëpp di def ay 40 ans seeni réew surtout dans les pays africains nekkul période boobu yëpp dañuy noot nit ñi dafa am période yoo xam dañuy oyofal parce que ils sont en mauvaise posture ba jekkuwaat doog a yéegaat ci kaw nit ñi kon bu ñu bàyyee na xam ne nous avons définitivement perdu ce combat cette fois-ci nous avons l'obligation de terminer ce que nous avons commencé cette fois-ci ñun dañoo am obligation bi ñu tàmbali ñu yeggali ko xam nga loolu mooy lan mooy xam lu mooy suñu objectif suñ objectif mooy Macky Sall moo xëy indi Sénégal système boo xam ne day tànn candidat yi ci élection ñun ñu xeex ba Ousmane Sonko war a nekk candidat mu forcé jël administration di défier des décisions de justice ñu ut ay alternative biir jo biir Pastef ay Jomaay Fay ak ñeneen ak ñeneen ci yeneen candidat mobilisé wu ñoo xam dañ leen recalé illégalement par le parrainage injustement ñooñu ñëw rejoindre yeneen coalition mu xëy din ak waa PDS ne léegi moom dafay reporter élection yi kon ci objectif mooy mu rétablir le calendrier républicain tant que Macky Sall rëp indiwaatul calendrier républicain xeex bi warul arrêté man man lii mooy sama discours de depuis dimanche bii passé maa ngi leen koy wax te maa ngi koy waxaat tant que Macky Sall nangu delluwul ginnaaw ne désormais day organiser waat élection yi à temps moo xam après décision conseil constitutionnel moo xam après bi mu xamee ne mu lii moo fi sës wala mu dem xam ne moom mënatul jiite réew mi tant que Macky Sall arrêté wu wala ay forces organisées comme ni ñu koy waxee contraindre ko ñun ñu bàyyi xeex bi ci loolu laay ñëwee ci troisième partie bi muy. li muy insinué ne ay coup d'état bu amee Sénégal arrangé wu classe politique bi ma gis ñoo xam ne nag si li ma jàpp sama xalaat bu gàtt xëy na li may xalaat bu noonu dañoo tombé ci piège bi Macky Sall kañ la xeex daan am Sénégal Macky Sall génn en pleine en pleine tempête muy wax <laughs> en pleine tempête da nga doon gis muy défier peuple soit du fi nekk wala mu dugg ci lu xam comme mars deux mille vingt et un parce wala comme juin 2023 mu génn ci àdduna bi di def yeneen acte di poser ay fleurs fële si Ukraine naan ñi dee di di day ñaawal peuple bi en buy def buy joxe interview en pleine tempête c'est parce que dafa bëgg a jouer si opinion bi mooy il est mal barré maanaam dafa sës léegi nag li nga xam ne moom la yàggal dugal ci bopp classe politique bi mooy man Macky Sall respecté wu ma leen yi aw ma benn problème ci armée jël pouvoir bi mais bu armée jëlee pouvoir bi yéen classe politique bi yéen ay perdre gars yi lii c'est une manipulation très dangereuse liñ ci jublu mooy fexe ba nit ñi ne ah ñun buñ continuer pression bi dëkk bi yëngatu continuer di yëngatu Macky sàll day jox armée pouvoir bi kon ñun nañu nañu nañu faiblir nañu wàññi niveau de niveau de pression bi bu loolu kan lay kan lay bénéficier Macky Sall muy continuer def lu ko neex te bis bu Macky Sall teniraatee nag le bon goût taxawaat ba meeb lépp communauté internationale bii mooy tourné àndaat ak moom parce que ñoom fu force yi nekk foofu la ñuy ñëw moo tax ma leen wax ne communauté internationale dañu ànd ak ñun parce que gis nañu ne sénégalais yi ngi xeex ci benn bi te d'accorduñ ci bu doon sénégalais yi ñoo ci d'accord du ñu taxaw wax dem leen ngeen xool documentaire sur YouTube Bachar Assad moi ou le chaos vous allez comprendre Macky Sall loolu nekk maanaam dama lay jàmpaaka nga yuuxu man la bu fi yuuxu boo fi yuuxoo am na koo xam bu ñëwee dégg sa yuuxu da lay tiire balu fetal pour yow nga nangu mu lay jam paaka parce que paaka taat bi la lay jam paaka bi mu lay rey mu lay jam du la de du la rey yow kon muñal yow ne tombe pas dans ce piège li mu bëgg mooy classe politique bi naan armée armée armée bu fi kii armée bu fi kii ba armée bi ñi ko ci bëggoon contraindre pour mu respecter la volonté populaire parce que loolu mooy loolu bi loolu bu ngeen jàlloo ci révolution française histoire lan mooy garde républicaine lan mooy armée républicaine lan mooy police républicaine dama loolu bu classe politique bi tegee pression ci armée bi armée bi ñi si amul courage pour wax ak Macky Sall ci force organisée yooyu ne ko réew mi nag moom moo ko yaa ngi koy yàq te loolu mooy seen rôle dans tous les pays du monde parce que ñoom ñooy garantir la sécurité nationale la défense nationale bu intérêt wu so waree yàqu ndax benn nit mais dañ koy wax ne ko ñun ñoo lay protéger il faut nga arrêté di mu dellu ginnaaw mooy gis nga moo tax ngay gis égyptiens yi xeex xeex nga jékki-jékki mu waar dem nga jékki-jékki tunisiens yi xeex benn aali dem parce que force yi ñoo ko doon réew mi tas na il faut nga dem pour mu jeex léegi yow loolu nga mun ko am yow opposant Macky Sall teg la pression ngay def conférence de presse naan Macky Sall armée bi bu leen ci dugg bu leen ci dugg bi duggul Macky Sall dinañu rey loolu mooy bu force organisée yi nga xam ne ñoo patriotique te gëm réew mi nekk ci biir force yooyu noonu taxawulee ne Macky Sall arrêté li ngay def ba Macky Sall obligé dellu ginnaaw wala mu dem Macky Sall ak dooleem mu yor tous ces leviers là xam ci ñun loolu mooy dëgg kon bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu def preuve de naïveté ñeen ñi commencé tasaare ci réseaux sociaux yi xam naa ne c'est de bonne foi Brice Oligui bu Gabon. naan Macky Sall coup d'état baare yu ko dafa bëgg a teg nitam loolu la bëggoon def seen bopp yi gis nga nit buy wax bul déglu li muy wax xoolal li muy jëf Sénégal dafa am position géostratégique boo xam ne amul ku fi mun a jël pouvoir ci militaire def lu la neex mënul nekk gis naa ñenn ñi jël exemple yi ak ay Burkina ba fa ba fa militaire jëlee pouvoir bi classe politique dañoo pousse yooyu du benn ñaari dëkk yooyu bi askan wi bu jug dañoo jug pour daaneel benn régime kese régime boobu bu daanoo mais askan wi doon élection nag teniru à date moo nekkoon seen seen seen doléance ñaareel bi mooy dëkk yooyu contexte sécuritaire bi dafa métti de telle sorte que armée bu ñu jëlee pouvoir bi il faut que ñu rétablir parce que terrorisme be da leen bëgg a rey da ngay dem Mali li ëpp ci territoire national demoon nañ mu nekk ci loxo force jihadiste yi wala boog ma bañ a mais terroriste yi Sénégal nag. loolu amu fi kan mooy jël kan mooy taxaw naan Macky Sall arrêté li ngay def contraindre ko mu démissionné après nga ne da ngay pouvoir bi sénégalais yi dina ci bàyyi mu nekk. parce que sénégalais yi seen xeex mooy nañ organiser élection kon boo nee Macky Sall moo organiser élection dafa dégagé boo ko fi dégagé da nga obligé organiser élection dans les deux délais te adduna bi loolu la lay contraindre kon Macky Sall moo leen gën a ragal coup d'état Macky Sall moo leen gën a ragal ne dañ ko fee dégagé par te bu jugoon ut ay nitam ku def baara yëgoo ci biir suñu force yi ngeen xam ne am na ay patriote yoo xam duñ nangul kenn ci ñoom muy def loolu ku mun ci doon nag Sénégal dafa am nu ñu redistribuer carte yi suñuy organiser armée noo xam ne affaire bi force yi dañ ko tasaare nekkul ci loxo benn nit noo xam ne mun na ñoo def baara yëgoom ku d'état mu jàll te bu jàllee kooku sax day war Macky Sall parce que day il est obligé d'offrir la tête de Macky Sall pour calmer le peuple sénégalais il est obligé kon Macky Sall li mu leen bëgg a wax comme Bachar Assane li mu doon def Syrie doon def tubaab yi yegg doon xeex naan moi ou le chaos da ngeen di ànd ak man sinon ma financé terroriste yi tijji leen buntu bàyyi leen libéré leen ci kaso yi ngeen gën a dee yéen tubaab yi ñuy def ay attentat seen dëkk yi di leen di leen alal da ngeen may soutenir man walla wala wala wala terroriste yi bu leen nangu choisir entre marteau wu Macky Sall ak enclume bu Macky Sall suñu yoon newul ci loolu xam nga lu ñu mu def du yoon. tey xeex ak moom na dellu ginnaaw bu dellu ginnaaw na fi jugee nu mu fi munti jugee suñu yoon newu ci bu fi jugeewee dinañ teg pression ku munti doon pour nga organiser élection dans les meilleurs mais yow opposant ngay ragal <laughs> na ma yàlla baal mais bëri na ci classe politique bi ñoo xam ne parfois damay toog ma ni est-ce que ñuy jàngat bi di ko càmbar bu baax a baax balaa ñuy prononcer wu sur des questions donc je encore une fois je dis que je respecte encore une fois je dis que waxuma ne sax li may wax par forcément am monopole vérité mais nañu jàng te waxtaan ci xel bu loolu weesoo nag mooy kon dialogue boobu Macky Sall di woote bis bu ñu ci demee fekk peuple bi dee nañu bis bu ñu jugee rek dem dialogue fekk Macky Sall danañ ko crédibiliser te bu boobaa sénégalais yi dinañ génn si suñu taxawaay ah, daal di ñu bàyyeeg Macky Sall Macky Sall nag téye classe politique bi doo ko jublu si ñoom def lu ko neex. dictature yëpp noonu la ñuy def heure bu ñu nekkee en mauvaise posture dem leen dans les années 90 ba ci Mobutu woote na ay conférences nationales ay dialogue ah partout en Afrique les gens fait appel à des dialogues à des conférences nationales <laughs> te ba léegi famille boobu ñoo continué woon Gabonais ba 2023 bi le coup d'état bi doog a am attention régime yooyu yëpp bu ñu demee ba nekk en mauvaise posture dañuy redistribuer carte yi oyofal ba je doo ko demaat ci kaw attitude u Macky Sall bu leen musa tax ngeen gëm ne Macky Sall gëm na dialogue bi muy woote wala nitu jàmm la nitu fitna la moo dugal Sénégal ci guuta gi loolu mooy dëgg kon loolu bu ko kenn perte de vue ay waxi Macky Sall bu ci kenn dóor seen doom musul wax dara ba respecté ko kon képp ku gëm Macky Sall ne dialogue mooy tax nga bokkaat li daloon ñi taxoon dialogue ba au mois de juin juillet mooy soit doo bokk xam ne suñu bokkul la de wala nga bokk sax mais élection du wala nga bokk mais à tel prix perte sa crédibilité populaire yow tu ne fais plus peur à Macky Sall am na ñoo xam tey Sénégalais yéen leen déglu tey bu ñu génnoon fii di woote naan nit ñi xeex te kan moo leen di faale parce que amatuñ crédibilité te acteur politique nag boo pertee sa crédibilité perte nga lépp fi may daanelee nag mooy mot d'ordre bi kon mooy demain coalition Diomaye président fépp dañuy ñuy distribuer ay flyers def seen i def seen i comme ni ko defee samedi ak dimanche. ci loolu nag laay rafetlu na taxawaay waa Mboro waa Tiwaawan waa Tiwaawan Pël waa Notto Gouye Jabaas waa Jidda Caaroy Kaw waa Ngaparu waa Sicap Liberté ak waa Géejawaay ak démb samedi zone yi nga xam ne ñëpp mobilisé wu nañ fa taxaw taxawaay bu am solo dans la semaine ay Mermoz Sacré-Cœur waa Sicap Liberté ni ngeen def rafetlu naa ko aussi tey dimanche waa Mermoz Sacré-Cœur waa Yoff waa Parcelles continuer la mobilisation yéen coalition Diomaye président ngeen xam ne Macky Sall est en situation d'illégalité parce que Amadou Ba bind na ko ci page am te c'est loolu mooy dëgg dès lors que loi bi ñu jàllale assemblée ne fa la ñu reporter élection yi am na saisine bu ñu saisir conseil constitutionnel la loi la saisine est suspensive donc élection yi kenn reporté bu ko donc nous sommes en situation d'illégalité bu amee ay candidats yoo xam ne nangu ñoo takk takk takk takk oto yi wàcc campagne mais ñun nañu wàcc def campagne moo tax ma jox ay directives yu leer que nitu GPS yi fépp nañu continuer seeni i caravane seen grande offensive parti fépp di def ay flyers di def ay caravane def ay porte à di wax ne élection yi dafa war a am loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg li ci tegu nag kon mooy à partir de demain c'est la campagne de désobéissance civile bu ñuy tuddee ville morte déjà day firnde parce que syndicat d' enseignants yi nee nañu suba grève générale la muy lundi muy mardi ne mercredi débrayage ma leen wax nag ne dëgg la seen exposé des motifs bi tax ñu grève dañu ne dafa am ay enseignants yu ñu arrêté te dama leen xamal ne enseignants yooyu ñu arrêté tant que Macky Sall dindiwul li mu annulé li mu sapé le processus électoral dinañ arrêté yeneen enseignants parce que enseignants yi ay patriotes même ci Sénégalais lañ bokk kon nañu xeex. continuer seen i grève tant que Macky Sall rétablir le processus électoral sinon Macky Sall libéré ay enseignants pour mbir mi delluwaat kon fépp ci Sénégal jàng warul am parce que jàng moo jiitu jàng booy jàng da ngay jàng dans la quiétude ñun ñëpp am nañ ay doom yoo xam ne ñu ngi jàng ci école yi suñu sañoon dem jàng yi waaye pas d'école kon loolu réussir na déjà li ci tegu mooy circulation fépp ci Sénégal ne Sénégalais yi taxaw arrêté lépp économie bu taxawee Macky Sall mënatul mënatul loolu nag il faut que ñun ñu commencé ko expérimenter xool ban ban impact lay am c'est extrêmement important li ci tegu aussi mooy au-delà de l'école au de la circulation routière au-delà du secteur des transport na nit ñi mobiliser wu partout au Sénégal def seen activité def seen i campagne loolu c'est extrêmement important parce que dafay bokk ci liy tax dëkk bi taxaw Macky Sall xam ne moom moo taxaw loo dëkk bi moom moo nekk responsable de tout cette situation donc la campagne de désobéissance civile se poursuit partout sur l'étendue du territoire national ñu mën a dakkal seen liggéey dañ dakkal seen liggéey immédiatement tous les syndicats ak ñi nga xam ne bokkuñ ci syndicats yi par solidarité à ce qui se passe yow mi yor sa liggéeyu bopp wala yow mi bokk ci entreprise da nga war a convaincre ña fa nekk ci délégué délégué délégué délégué personnel bi ñëpp ñu taxaw ànd ci cette dynamique nationale bu ñu ci defee réew mi sauvé ñu delluwaat ci jàmm. ku nekk xëy sa liggéey dëkk bi jëm kanam li ci des nag mooy bu loolu weesoo mardi gis ngeen plateforme aar suñu élection manifestation marche nationale bi mu woote dañ ci ñëpp dem waaye ni ñu ciy demee nag mooy fépp ci Sénégal nag nañu ñu manifester parce que am na ñoo xam ne xëy na mënuñ ñëw Dakar jël rond point Jet dem ba ñëpp xaj foofu déjà bu ñëpp Sénégal yi amul ci lii dañoo xaj ci diggante rond point Jet ak euh, ak école normale. donc kon na nit def les manifestations mardi partout bu ñu nee manifestation mardi partout sur l'étendue du territoire nag xam ngeen ne manifestation lañ koy waajal kon yow may jëkk tàmbaleel des à présent waajal la série de manifestation partout au Sénégal à partir du mardi incha allah loolu moo nekkoon euh, moo topp bi ñu bëggoon joxe suba ak gannaaw suba di ñaan yàlla jëlee fii fitna bi nekk Sénégal Macky Sall ak nguuram dem Sénégal ñu organise élection dans les ki askan wi jox bopp tànn ko librement ñu jëm ko réew mi te yàlla na doon ci gën ci réew mi te ñun gëm nañ ne c'est Diomaye Faye qui est le choix du président Ousmane Sonko maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamualeykum